mais sàmm ak mbind mi sàmm mbind Seydil Hadji Malick sàmm nan lay def fa tabaarakallaahu ba capté moo xam xilaas la wala ci bindu Serigne Babacar wala maam Abdou gars yi ñoom yóbbante question boobu sàmm nan lay def daal ba capté. Eh, yooyu noonu. dafa amoon suñu benn soppe benn Serigne daara bu ñuy wax Babacar Jara Babacar Jara. moom mi ngi jàngee ci daaray Baye alxaaji Mouhamadul Moustapha Sarr Mouhamadou Moustapha Sarr muqaddamu sëñ Mansour la imaam la ci zawiya sëñ Babacar moo jàngal Babacar Jara sama yaay euh, dafa xëy ni Babacar saam daal comme bëgg na jàng comme bëgg na di tagg yonent bi bëgguma muy tagg bi nii toppara njax njax ji rek dama bëgg mu jàng waaw mu boole maag Babacar Jara Jara nag Babacar nag nekk ku yéwén ci xam-xam bari le ko di jàmbaar bu bu musa ñaanit ci la Babacar bu ma musaa indi xasida dama naan ko xasida sàngam laa bëgg jàng xasida benn benn bayit bu nekk Babacar Jara da ciy jaar juróomi yoon su ci jaaree juróomi yoon bu ma ci toppee juróom yoon mokkal ko waaw daan naa xëy mokkal 15 bayit ci bis waaw daan ma demul programme ay 20 bayit Sudah dee program program dan amo kel 15 bayit loolu tegale na ko panda des années et eh, des années yo xamni gennuma génnuma te bis bu jot dina moko loolu mom babakar jere mom moko def ci man di ak ay makha di ak makharijul huruf ak fasahatul kalam bi bamul mu leer non lama ma jàngale yi non lama ko firile non lama ma lenen yenen tinen yeneen yi ma jàng yëpp Habib ma sha allah rabbi legi ba ci legi Babacar Diarra mu ngi ànd ak yow ba léegi wala fi mu nekk nii parce que xasida yi des fois ngi jëkk ba si yàgg am ko benn benn xasida xasida bu xasida bu génn man du ma jàng ci kaset xasida bu génn moom laay woo ni ko xasida sàngam defaral ma ko mu defar ma ko mu defaral ma ko enregistré ma ko yónnee ma ko ma jàng